doo sàkku ngërëmam yóneen sa soppe billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yashir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu bokkal yàlla nu ngi leen di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla ak barkeem yërmandeem ak xéewlaam suturaam yàlla na ko yàlla wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot tabaarakallaahu yéen ngi ànd ak Abdoulahi Ndiaye seen émission bi ñu tuddee li fi réew mi fa tabaarakallaahu ñooy koy am ak mardi bu jot ci waxtu wii euh, tey ngeen ci ànd ak Abdoulahi Ndiaye li fi réew mi nag émission la boo xam ne macha allah comme ni ñu ko waxee ay biis yi paase mbaax rek mooy li ko tax a jóg ndax wax nañ la ne kat mbaax alal lu julli la te fu mu ko fekk rek da ko war a jëli tabaarakallaahu tey suñu tem nag euh, ñiy waxtaane li nga xamante ni moom mooy mbaax ndaxit mbaax. dañuy wax ni alalu julli la te fu mu ko fekk da ko war a jëli te mbaax dañuy wax ne euh, tabaarakallaahu bal tansi la te bal ku ne xam na ni euh, boo ko dóoree ci miim ci yow lay dellu niki noonu même lu safaanook mbaax muy ngi xam ne moom mooy safaan sax dañuy wax ni bal tansi la boo ko dóoree ci miir gi ci yow lay dellu si ndax nit ki lépp loo xam ne yaa ngi ko yéene sa moroom rek yëgal ni yéene googu nga ko yéene kat yaa ko ca jiitu ndax dañuy wax ni dafa amoon génn dëkk genn mag bu baax nekkoon ci bu ñu doon tudd bu ñu doon tuddee bàyyi lu waay def boppam bàyyi lu waay def boppam dafa nekkoon ndeysaan ci pénc mi kum masaana nuyu rek ba jaama senteeg moom rek fi muy fi muy jeexale ak yow rek danaan la ah ndeysaan lu waaye def boppam lu waay def boppam moom dafa dem ba tur googu lañ koy wooye ne lu waay def boppam am génn jigéen gu ne ci pénc mi daan kiikat kii lii muy wax kat danaa ko ci jumloo wane ko du waaye def rek boppam tabaarakallaahu mu am bis ci bis yi euh, bàyyi lu waaye def boppam nekkoon ci toolam di bay ndaw soosu daal di defar laax ba mu baax defar yëfi njóobee ni comme ni ñu ko waxee defar ko ba mu baax tabaarakallaahu daal di koy defar dem ca toolu toolu bàyyi lu waaye def boppam ne ko kat man dama laa indi laax nekkata laax mi ndaw si da koo posane posone bi mu posane laax mi nag bàyyil waaye dafa comme dafa nekk ci liggéey bi daal di jël li nga xam ne moom mooy euh, boolu lax gi daal koy teg ci ci peggam nekk ci waar yi rek ndeysaan macha allah boole kook di way ay wayam naan bàyyil naan lu waay def boppam lu waay def nga xamante ni ba ay booru 10 heures ndaw soosu nga xamante ne moo ko jox laax boobu doomam jóge jàngi école daal di wàcc wala génn 10 heures pour ndékki ji daal di jaar toolu bàyyi lu waay def boppam. nekk fa foo di foo di waxtu wi daal ne ah, na bàyyi lu waay def boppam damaa xiif mu ne ko ah da xiif mu ne ko waaw ndeysaan mu ne ko ah laax de moo ngi noonu soog ci pegg mi xale bi daal di xëcc bool bi rek tàmbalee lekk fala daanu ba mu daanoo nag bàyyi lu waay def boppam daal di waay def boppam daal di jaaxle nag penc mi ñëpp daw daanu na loo def doomu jaamu ak na loo ko def tabaarakallaahu ñu daal di woo yaay ji yaay ji daw si daal di ñëw yaay ji ba mu laajee bàyyi lu waay def boppam xale bi lan moo ko jot ah def na ko man de wax dëgg yàlla sa doom de dafa ñëw fii ne dafa xiif. te laax bi nga xamante ni fa tabaarakallaahu moom nga ma joxoon pour ma euh, xéwloo ko ma ndékkee ko ma am ci moom ñeewantal ma daal di jël boolu laax gi daal ko koy jox ah moom dala xéwloo nii rek fa tabaarakallaahu daal di daal di daanu ci suuf rek ndaw si daal di yann ay loxoom rek daal di yuuxu yuux daal ne way yàqu naa ah ñu ne ko yow lan moo waral nga yuuxu lu tax nga ne yàqu naa mu ne laax bi maa ko jox bàyyi lu waay def boppam ndax baatu waaye lu waay def boppam rek baat googu moo ma dérangé ma koy wane ma ko doon wan ni nekkul waaye def rek boppam ba nga xamante ni fa tabaarakallaahu laa jëlee li nga xamante ni moom mooy laax boobu def ci poson ne dama ko indil bàyyil waaye te boppam doomam daal di koy lekk daal di faatu bàyyi lu waay def boppam tontu ko ne ko ba léegi rek lu waay def boppam kon mbokk yi liñ ci mën a jàngante rek fa tabaarakallaahu mooy lu waaye def boppam te nit ki lépp lu yéene sa morom rek danga nga koy yéene jëf ju baax moom la ñuy wax ne bàyyi leen signe bi tey reetaan ndax nit koo jaakaarloog sax di ko ree di ko ibbil say bëñ bëñ ñu ngi koy maanaam yi ngi koy génnal na nekk loo xam ne fa tabaarakallaahu na doon lu rafet dañuy wax ne ree xol moo koy def waaw reetaan xoloo koy def waaye signe gémmiñ rek a koy def kon nanu bàyyi eh, di jaakaarloog nit ñi di leen signe fekk yoo wal fekk yoo ñun reetaanu ñu leen ci sunu xol kon lu waay def boppam moo xam ci côté gu mën a doon moo ko tax moo tax ci côté gu mën a doon rek nit ki loo yéene sa bopp ci lu baax rek yéene ko sa mbokk jullit lépp loo yéene sa bopp rek yéene ko sa mbokk jullit ndax dañuy wax ne mbaax a sakkan te jëf rek mooy jëf rek baax rek mooy li nga xam ne moom mooy sakkan te boo baaxee rek fa tabaarakallaahu noppal ñëpp ndax dañuy wax ne xeetu baakaar yëpp ngay gis dañuy wax ne baakaaru kiñaan moo ci nekk baakaar goo xam ne moo ci gën a mën ndax dañuy wax ne njaaloo li ñu koy tere la muy bon bon bon boo ko defee am ci bànneex waaw jëw boo toogee jël sa temps di nekk ci deru nit ki ah dana neex ci sa xol yow mi koy def boo sàccee raw sàcc googu nga sàcc raw sax fa tabaarakallaahu dana neex ci sa xol waaye gis nga gis nga ba gis nga kañaan da koy def yow mi koy def moo ngi moo ngi lakk sa xol la ngay def fa tabaarakallaahu yàlla bëgg ko te yow sa jëm bopp mënu mënoo cee am yaram kon lépp loo yéene sa morom rek lépp loo yéene sa bopp rek na nga ko yéene sa mbokk jullit te ñu xam ne mbaax rek a sakkan mbaax àllu jullit la ba ci way dencante yi ñoom ñëpp nañu yéene euh, fa tabaarakallaahu yéene te mbaax ba nit ki lépp loo koy defal rek nga defal ko ci ak xol gu sedd guy ndax nag dañuy wax ne fa tabaarakallaahu euh, lépp loo gis rek euh, bëggoo loo ko def rek bul ko def sa sa moromu jullit comme nu ñu koy waxee kon li fi réew mi nag indi leen émission yi mel ni bëgg ñun ñu defaru ci bëgg ku ci nekk ci ñun defaru ci defaru ci ba ki jaakaar la yoon di wax sax la muy wax mu jiitu ci ndax sunu yaay ja yàlla na yàlla yërëm ko muy Seyda Zeynab doon wax naan sàq mi te yow dara nax sa bopp la sàq mi te yow dara nax sa bopp la te jaaxaan di tuur ndox boo jàpp ne yaa ngi tooyal kenn yaa ngi nax sa bopp balaa nga ko xam da ngaa yeewu kon nag nañu yéenante mbaax di tasaare mbaax ci suñu diggante te ñu xam ne ne mbaax alalu julli la te mbaax rek mooy li nga xamante ni moom moo am solo nee nañ boo baaxee am nga solo boo baaxul amoo solo fa tabaarakallaahu kon tey li la leen indi leen seen ñu indi ko ci li nga xamante ne moom mooy mbaax indi ko ci mbaax te nag macha allah mbaax dafa daf ñoo war ñun ñëpp kon mbokk yi li la leen tey lépp lu ci jub rek ci yàlla lépp lu ci dëng rek sunu matadi la ak gàtt àlluwa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lislaam a ngi jooy leen daalal ngi suux jug leen suuxat daalal ko. suux jóg leen suuxat ko ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yóneen sa soppe